soxnaam génn tey àdduna. waaw eh, di soxna maam bit di aawam. waaw waaw. yéen waa làmb lu ngeen ko jaalee. man yéen waa làmb nga wax. Hmm. wala waa déglu man du ma réew mi. Hmm. Abdou Aziz sama doom la. yaayam Khoudia Diop maa ko yor fii ci Grand Dakar sunu diggante ñaari kër yi matul 20 mètres. yaa ngi dégg li ma la yaayam Khoudia Diop mi ko jur. dama ne sama kanam la xale loo ñoo dend kër nii Grand Dakar sunu ñaari kër yi eh, kër kër kër ñoom ufiye ci dox ak kër ñoom euh, tukulóor yi ak seen kër topp ci kon xam nga maa ko kon xam nga ne Aziz sama sama maanaam sama sët la sama doom la kooku man kon waxuma waa Ndakaaru lu ma ci wax te it xam naa ko xam na ma bu baax a baax yaayam lu ko dal dal na ma lu ko naqare naqare ma leen ko jaale di ñaan ci yàlla yàlla may leen yàlla xare ko àjjana atuma parce que man ndaw si man sax xaw ma ko parce que kër Aziz mosuma faa dem mosul ñëw sama kër mosuma dem këram nag wax yàlla kër yaayam na mas naa fa dem sama grand la woon ñu dëkk fii ci Grand Dakar muy support écurie Fass maag moom mii te dem di ko seet fii ci Grand Dakar ci marché Grand Dakar loolu yàgg booy li ma la du tey démb la woon waaw loolu yéen ñi bu ngeen juddoo it xam naa ne booba xale ngeen li may lu yàgg la waaw ak lan euh, problème mu écurie yi actuellement tey problème mu écurie Fass na ci diggante Papa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Moustapha Gueye Papa Sow démb def sorti mu Gueye am lu mu waxoon euh, euh, souvent dañu gis ni problème mu écurie ak champion yi lu ci bëri foofu lay mujjee boo ma laajee ci écrit sax xam-xam bi ma yor ma wax la ci ñooñu laa dundal Fass def naa fa vingt quatorze ans ci ginnaaw Mbaye Gueye booba ñii fii bëri juddu wuñu ba ma fa génnee xamatuma fa dara boole wuñu ma ci dara booletuñu ma ci dara Papa Sow ñoo dëkk maa bàyyam ñoo dëkk ñoo ànd di supporter Mbaye Gueye di ànd ak Mbaye ci làmb ji mosu ñoo am combat ba ma mosu ñoo am combat ba yëgal ma mosu ñu maa boole ci dara moo tax du ma wax ci seen dara lu ma leen wax tooñ ci ñoom laay def parce que boole wuñu ma ci dara comme boole muy seen dara nag may damay am maandu téye téye sama bopp téye sama làmmiñ xam naa lu bari nag xam naa lu bari waaye du ma wax parce que ba may ne Fass booba ñooñu judduwuñu la fa xew xam naa fa lu bëree bëree bëri sama ginnaaw it am na lu xew loo xam ne xaw ma ko loo koy déggee laaj ma ko man mi ma wax la ko ci booy man xam nga du ma daw keesu. non c'est que waa Fass wala waa parcelle ndax. waaw ah, mu ngoog loo ma laaj rek naa moom xam na ma ñëw na sama kër. xam nga papa féminité yi waa tey lañ ko gën a lañ ko gën a féetee waa Fass tey ku ne xam ne sa diggante waa parcelle. parcelle ñoo ñëpp samay doom lañu Modou Lo bàyyam bi ma koy jël di ko yóbbu Mappat fii Iba Mar Diop boobu amul licence doon amul licence simple mu dem ba final la mu fa gagné muy 35 maa xëy taal sama oto dem ba ci bàyyam ne ko sa doom ji soo amee sa ñaan des na ko dégg mu ne doom ju ma gërëm la man ci jën yi laay liggéey 3 heures laa koy moo jàppale ba 7 heures ma ne ko des na ko ma sa dégg nag boobu amul licence lii wax naa ko ci rajo wax ko ci ba saa ku ne dégg la seq nag kenn ñëw ci sama kër may dew ma seen kër wax dëgg yàlla kenn ñëw sama kër nag waaye may dem ba ci kër kenn. jërëjëf El Hadj Ibrahima waaw loolu la de. Euh, Père Ñoxo ñoo ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay di leen jox kenn ku ci nekk sa wàccuwaay di la ñaanal yàlla. tey lu metti dal ci mondu làmb dal ci réew mi Abdoul Aziz Ndiaye soxnaam aawam soxna maam bint bàyyi fii tey suba. damay wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañ jóge ci yàlla la ñuy dellu waaye fekkoon na Abdou Aziz gëm loolu ndax bi ko Alaaji Ale Njaay jure ba pare tudde ko Abdou Aziz si al amin dafa topp ci tànki maamam gis nga gàmm gu ne li wax naan sët dina Euh, defal maamam ëllëg wala mu waxal maamam ëllëg jalooreem loolu maamam daan defal Serigne Babacar at mu jot moo koy def euh, soxnaam soosu génn àdduna ñu bari sa xamuñu ko ndax noppi gu noppi nëbb gu mu nëbb xam li koy ki ko yàlla booleel ba siisu ci kenn heure boo ñëwee di seet Abdou Aziz dina la dalal may la ndox nga naan boo xaaree Aziz fekkoo ko fa dina lamb ci am jox la paas kon ñu ngi koy jàll monde lamb yëpp promoteur yi waaye di ko jàll le président de la république li tax ma wax loolu nag mooy Abdou Aziz dafa bokk ci xale yi nga xam ne fac de développement bi nga xam ne ci la nekk di ko liggéey ak social bi nga xam ne mi koy def ku mel noonu c'est un par parmi les sénégalais ñu ngi ñaan yàlla na soxnaam sos yàlla na ko dëddoo jàmm fu mu ko féete woon yàlla na ko fa yàlla féete waaye biir na ma biir yàlla biir yonent bi ne Abdou Aziz gëm na ne yàlla ko joxoon yàlla ko jëlaat ndax ku li nëb seen saa yi di leen ñaanal yàlla yéen ndax damay wax ne bu njëkk nit daana faatu trois mois après ñu naan kañ la faatu léegi bu doomu adama bi génne àdduna léegi monde entier bépp daal di koy yëg loolu nag réseaux sociaux yi la yokk yokkute boo xam ne man damay wax ne fii damay tiit sama tiitaange mooy yàlla dafa able ñet maye benn bu gën ñett yi mu able yàlla dafa able taar loo gën a màggat gën a ñaaw yàlla dafa able doole loo gën a màggat gën a néew doole mais yàlla dafa able alal nekkal minti milliardaire boo wàccee liggéey loo yoroon moom a toog ko doom joo fi bàyyi wala jabar joo fi bàyyi li yàlla maye nag mooy moo baax doon nekk ci lu baax di def lu baax am ñu baax ñi ba génn àdduna ñu baax ñëpp ànd ak yow gunge la ba ci yàlla mu baax la mu di la yóbbu fenn fu bon kon yàlla na ko yàlla xaare àjjana yàlla na dëddoo borom këram jàmm njaboot gi mu amat ak Aziz yàlla na ci yàlla teg loxo ba kenn ku ci ne tekki lan loo xam ne dina koy ñaanal ñaan koy fekk ca Barsàq Seydina Mohamed jërë ngeen jëf. des jeunes euh, présents des amateurs tey monde làmb nekk en deuil Abdoul Aziz Ndiaye promoteur soxnaam aawam Mambinta euh, génn àdduna tey. Euh, boo demee nag inna lillahi wa ilayna raji'un euh, ki fi jóge tey yal na ko yàlla xaral àjjana yonent bi teeru ko soxna suñu nattango Aziz Ndiaye la te Aziz Ndiaye xam xam nga ko ci làmb ji Aziz Ndiaye. am na lu mu représenté ci làmb ji def na fi lu nekk tëgg na fi combat bu nekk làmb bu taxaw fii jéegoom mi ngi si biir kon nag bu amee naqar naqar ñun ñëpp ñoo ko bokk ku nekk mën nga ko jàll sa morom euh, néew bi mi ngi fi suba lañ ko yóbbu Tiwaawoon ku ci mën dem ànd ci ci cortège nga ak dem ci cortège mais lundi dañ wax dañ koy sarxal ngi ñaan ñu fa seedeel ko ànd ak moom jiiral ko ci bés bi ba bés bi woyof ci moom kii dem nag bu fi bu bàyyee njaboot yàlla na yàlla teg loxo ci njaboot gi di fi bàyyee ak jàmm macha allah merci. merci beaucoup Aziz di nekk fii di liggéey nekkoon Sandaga bëgg a avant muy doon sax Aziz Ndiaye promoteur doonoon supporteru écurie Fass bu Moustapha Gueye doon sonn si ñun ñuy ànd mu nekk booy mu mës a nekk koo xam ne dafa mës a gëm réewam. mës a nekk jeune bu mës liggéey pour réewam ba pare waxuma la nag pour làmb moo am lu mu def ci làmb am lu muy def ci diine tarixa tiijaan am lu muy def ci senegal kon kooku tey bu soxnaam wàññeekoo tey senegal moo ñàkk monde làmb moo ñàkk ñu koy ñaanal yàlla mu am xolu muñ ñaanal yàlla jabar ji yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kawe ñaanal ko yàlla aar njaboot jëm fi bàyyi aar Aziz làq ko fi yàgg agul parce que Aziz kat ku am njëriñ ci réew mi la boo nekkee jeune nekk sa réew liggéey bay créer ay emploi kon am nga njëriñ ci réew mi kon Aziz ñi ngi koy jaale jabaram boobu du ko ñaanal yàlla xare ko ci àjjana yu gën a kawe